hasard mais euh, bi ci njëkk mooy anniversaire u Oumy Thiaw Mbaye moom ñi ngi koy woowee Oumzo de la part de monsieur et madame euh, Guèye ñoom ñoo lay souhaiter un happy birthday Happy birthday à Cheikhna Bamba Gueye de la part de sa maman Anta Gueye, Mben Gueye et maman Kumba ñoom ñooy souhaiter joyeux anniversaire à ce mignon bébé machallah longue vie à toi. Happy birthday à Bousso Kayré, madame Mbacké euh, bëgg na euh, na ah waa léegi kii nga daal bëggal waa demal yow daal comme bind nga sa message demal demal demal. Donc anniversaire à Kayré Bousso madame Mbacké euh boo xamante ne daf ma bëggal boppam nag vraiment euh, lu bëgg bëgg na lu ma bañ bañ na. waaw ku ma ku ma jàppante sax mu xulooleel ma ko donc euh, joyeux anniversaire a toi euh, yal la yàlla lafal cat may la li nga bëgg ci sa biir néegu sëy ak euh, ci say projets professionnels et personnels donc voilà happy birthday à toi et gros bisous. waaw am nañu fi beneen anniversaire aussi bu Momar Lay Diagne depuis Yoff moom it mi ngi fête anniversaire am on lui souhaite un happy birthday et une longue vie. Euh, anniversaire am la wala bosu doomam bu leen ma indil benn problème donc happy birthday au bébé bébé mooy anniversaire joyeux anniversaire à toi il euh, y a un anniversaire de madame Diop. donc Mado bàyyil ma bàyyi la nga souhaité ko joyeux donc euh, waaw madame Diop la nag kooku moom moo di euh, madame Diop Khadija borom Nabi Design donc des représentantes vitamine white fii ci Sénégal moom mooy chéri Mouhamed Diop borom baax bi donc ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér et on lui souhaite tout le bonheur du monde bijou